Réumi 24 TV. dal leen ak jaamu ci xibaar jeudi 21 septembre mu mel ni rek Malick Gakou daal dinay nekk ci ay problème lu rëy rëy rëy ndax bu ñu rek lu doy waar moom moo dal fii ñuy wax ak yéen nii kon ki nga xam ne rek mooy El Hadji Malick Gakou métikam boobu nga xam ne rek moom la doon def ginnaaw rek ba mu tàmbalee rek jàkkaarloog ñi nga xam ne rek mooy ay militant ba mu commencé rek bay wax rek tukki takk dere daal di dugg si ci biir bi dugg see rek jox ko ab xaatim rek li mandarga rek di ko ko rek dañuy tere bépp rassemblement fii ci Sénégal ba nga xam may na sa kon El Hadji Malick nekk noonu rek ci la daal di arrêté la def saase ndax rek takk dere ñoom ñoo dugg si rek ca biir meeting ba daal di koy jox ak kayit rek di ko wan ne arrêté ndax fi mu toll nii état bi dafay tere bépp rassemblement rek na kon injustice bu métti jamono yi moom moo am ci Sénégal kon El Hadji Malick Gakou jamono yi rek ma nga xamee Ousmane Sonko lañ ko doon def te jamono yi rek ma nga ci hôpital principal kon fii ñuy wax ak yéen nii daal El Hadji Malick Gakou moom it daal dinay sonn ndax jamono yi yëpp rek heure bu génn rek waaye rek bi yoon daal ba mu taxawee rek di def meeting ci lañ rek dugg si ñoom takk der yi daal di koy jox rek ab këyit rek bu koy wan rek na arrêté rek li muy def ndax fi mu toll nii dañuy tere déplacement mu na kon fii la toolu jamono yi